dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen ñu xëyandoo yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ak benn Bokk Yaakaar ak waa APR ndax dañoo ragal a organise li nga xam ne mooy élection locale yi ci contexte bii nga xam ne moom la ñu nekk ndax jamono ji maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi sonn ba maara détaal yi di jàmbat bëri na lool te ñenn ci askan wi jamono ji mere nañ lool ki nga xam ne mooy Macky Sall li ñu ko joxar bi baraamu tuuma na yéen gi di réew mi quotidien nee na fii nga xam ne fi la réew mi toll Macky Sall dafa njortu ne su organiser ci élection locale yi mën na koo ñàkk ndax ñi nga xam ne ñoo ko mere maanaam ñoo bëri lool ci réew mi ñi xam ne ñoo ñàkk ba maara day taal yi ñi seen loxo juddul ñi nga xam ne dem nañ ba amutuñu ñu nekk Macky Sall bu organiser élection locale yi na ko leer na daf koy ñàkk te loole nag nga xam ne ñooy opposition bi xam nañu ko ndax opposition bi ñoom xam nañ ne jamono ji ñoom ñoom mauvais vent ndax askan wi dañoo ma Macky Sall loolee moo tax nag opposition bi bëgg see profiter ngir sëkkatal régime bi ngir ñu organiser élection locale yi ci atum 2021 yéen a kaay gi nee na nag ñi nga xam ne ñooy opposition bi bu ñu fi nekkee di yaacaaral ba 2022 jamono jooju nag dina fekk Macky Sall jubbanti lu baree bari maanaam gën a amaat doole yéen gi nee na manifestation yi nga xam ne moo fi jaaroon loolee ragal loona Macky Sall ba tey ci biir journal bi di la témoin nee na en tout cas li am ba a Sall démb am ndaje am na bi ngir nag ñu jàpp ana ban date la ñuy organiser yi nii maanaam ak juboo amu ca yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy bi ñoom nag dañoo tuumaal majorité bi majorité bi ñoom tim di tuumaal opposition bi ci lajji gi nga xam ne waxtaanu démb wela a na ko yéen kaay gi di Source A xëy di ñu xibaar naan ñu majorité bi maanaam régime bi ñoom dafa mel ni jamono ji dem nañ ba jaaxle ndax dem nañ sax bay wax ne su ngeen nangoo yéen opposition bi ñu daal leen boo xam ne dinañu amal élection locale yi ci atum 2022 waaye tamit ca at ne mooy élection législative yi ko amal ci atum 2022 loole nag ñi nga xam ne ñooy bi dañoo jàpp ne bi daal waxi kasaw-kasaw maanaam bëgg leen a tuur lëndëm lay def yéenekaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu Khalifa Ababacar Sall mi nga xam ne moo fi nekkoon maire bu Ndakaaru jamono ji nag ma ngi def ay tournée waaye nag dafa bëgg a ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias ngir nag mu mën a jiite li nga xam ne mooy mairie bu Ndakaaru yéenekaay gi ne ca tournée yooyu nag Ousmane Sonko njiitul Pastef ñoom nag pare nañu sax ngir jàppale Barthélémy Dias ci mairie bu Ndakaaru yéenekaay gii di Rewmi ak Libération xëy yóbbu ñu université de Cheikh Anta bu Ndakaaru ci conseil de l'assemblée bi nga xamante ni bu Ndakaaru ñoom daal la nga xam ne moom la bëgg nag maanaam lépp loo xam ne jëm na ci wàllum amical ñu daal di koy dakkal jamono ji ca université de Cheikh Anta bu Ndakaaru tëj li nga xam ne mooy campus defoon nañ ko ay bés yi ñu génn ba am ko sa ñàkk bakkanam loole moo tax conseil de l'assemblée de l'université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru sàkk ñu daal di koy dogal waaye nag sàkk na ko ci ki nga xam ne mooy Maguette Sène mi jiite kudd waaye nag waa kudd ñoom dañoo lànk kandaare nee na ñu amuñu benn compétence maanaam amuñu doole joo xam ne wala ab sañ-sañ boo xam ne war na nañoo mën a tëj li nga xam ne mooy campus social yéen a kaay gi nee na dogal boobee nga xamante ni conseil ba jël na ko tax na étudiants yi démb mer nañu ba maara détail yi wàcc nañu si mbedd mi jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi conseil restreint de l'assemblée de université Cheikh Anta Diop xaalis a bàyyi Malick Fall moo ko boobee daal li muy yokk rek fitna ci université bi yéen a kaay gi de xëy di ñu xibaar naan ñu faux médicament yi nga xam ne jàpp nañ ko ci Sénégal fan yi ñu génn ci Ndakaaru ci gox bii di Patte d'Oie ordre des ñoom nag nee nañu danañu porte plainte ba pare di sàkku mbir mi daal di leer képp xamante ni laale na si ñu daal di koy koy xam yéen kaay gi di Vox yi dañu ko war a ko criminaliser ci ñi di réew xibaar naan ñu taskatu xabaar yi nekk ci réewum Sénégal am nañ lu leen metti lool moo tax ñetti fan ci weeru mai bi nga xam ne moom la ñu dëgmal mu yemboo ak bëccëg bi ñu jagleel wàllum tasum xibaar ci àdduna bi danañu wàcc ci mbedd mi la ko waral ñoom taskatu xabaar yi nee li ñu leen di menace de mort dafa bëri ak li ñu leen leen di bunduxataal réew mi ko du jë xëy duñu xibaar naan ñu coronavirus bi jamono ji ma ngi gën di wàññeeku ci réewum Sénégal ndax jamono ji lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñoo amee doomu jàngoro ji ñoo tëdd ci lali hôpitaux yi yéen a kaay gii du l'Observateur nee na ñàkk yi nga xamante ni jamono ji ñoo ngi koy ñàkk gaaye ñàkk yi ñoo ngi def lu dara jërul ci ay musiba moomoo kumba ndax am na ñoo xamante ni bi ñu leen ñàkkee lu toll si juróom fukki nit ñoo xam ne bi ñu leen ñàkkee dañu leen mujjee rawale ji hôpital am na si juróom-ñeent ñoo xam ne ñoo ngi ci cas grave maanaam diggante dund ak dee dañu leen ñàkk yéen a kaay gi na ñi nga xam ne jot nañu leen a ñàkk ci réewum Sénégal effet secondaire yi tax na am lu toll si ñetti nit ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy ñu xibaar naan ñu am na benn rapport boo xamante ni waa Nations Unies ñoo ko def jëmale ko si wàllum sexualité rapport boobee nag ngir adduna bi yëpp la waaye nag bu dee Sénégal téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yëpp daal di ay jigéen bu ñu leen sàkkoo duñu lànk maanaam bu ñu bëggee ànd ak ñoom loolee duñu ko gàntal yéen a kaay gi di SR xëy wax ci ak Edouard Mendy mi nga xam ne mooy meilleur gardien Ligue des champion Edouard Mendy def na juróom-ñeenti mat yoo xam ne juróom-ñaari mat yëpp encaissé wu si bii te am na si juróom-ñaar ci ay victoire yéen a gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Bombardier muy dànkaafu Balla Gaye numéro 2 ak i mbokkam ak i supporter am Bombardier nee na en tout cas mbokki Balla Gaye 2 nañu wax ak moom su ma ko jàppee maanaam duma ko may dara te combat boobee dina saf dina weqat ci moom